waaw salaamaaleykum internautes yi Diégo parle foot nuyu naa leen ziar leen j'espère que yéen ci jàmm di wax képp koo xamante ne gan nga ci suñu chaîne YouTube bi ñoo ngi lay ñaan rek nga abonné te activer cloche bi ndax euh, vidéo ba ñu dugal rek da nga bokk ci ñu koy njëkk a gis woy leen di like di commenter ak partager loolu bokk na ci li ngeen ñu mën a jàppale bu baax a baax a baax waaw ñu ñëw ci euh, Sofiane Diop ak Lamine Yamal la ñu wax ci moom mooy ñoom ñaar dañoo niroo histoire lutax ñu wax leen loolu fekkee di Soufiane Diop ma nga France ca Europe waaw juddoo foofee ca France joué ci petite catégorie et tout wante c'est euh, ay origine fii ci Afrique la particulièrement Sénégal ak Maroc bi nga xamante ay parents wante bu ñu jëlee kaaw Lamine Yamal moom Europe la Espagne waaye ay qui tamit également fii ci Afrique particulièrement Guinée équatoriale ak fi nga xamantene moy mooy Maroc waaw ñoom histoire bobu lañu nuro nuroo bobu timit lañu am man nañoo wax donc mu nekk ñaari joueurs yo xamantene ils sont assez talentueux bo xamantene tay bu ñëwé fi ci Afrique mën nañoo yobbu limeeru Afrique wala drapeau Afrique fu sore sori kon ñu ñaanal leen ñu def soit fi ci euh, Afrique ndax dal ñu mëna yëkëti football africain fu kawé kawé ndax ñaar ñu mën football lañ machallah donc loolu la ñuy ñaan di wax nag euh, ngeen ñëw wax ci seen xalaat ak seen gis-gis daa wax wéy leen di like di commenter ak partage partager jaa ngeen jëf.